asalaamaaleykum euh, suñu mbokku téléspectateurs yi nga xam ni ñooy ànd ak euh, seen site euh, internet Sénégal 7 première site bi nga xam ni moo nekk fii ci réew mi tey nag ñi ñëw fii nga xam ni mooy Taïba Mbi Mbitey Taïba Mbitey nag nekk na dëkk boo xamante ni ji mi ngi nekk à quelques kilomètres de Kaolack da ngay ñëw ba génn Kaolack jël fi nga xam ni mooy pont bi nga xam ni mooy pont Noiro léegi nag ci loolu nag si ngay daal di utali nag. doxaat ay kilomètres door a yëg si dëkk bi tey nag liñ fi indi mu nekk loo xamante ni ji lu am solo la nekk loo xamante ji également dafa jëm ci lislaam jëm ci diine ki nga xam ni nag moo waral mbir mi nekkul kenn ki nga xam ni sët la ci ki nga xam ni mooy Seexal Maulana Ibrahima ñas di Ummu Suleymin ñas nga xam ni euh, juma bi ngeen gis seen ginnaaw moo ci def ay millions ngir def ko ci dëkk bi nga xam ni euh, nekk na loo xamante ni ji lu am solo la ci diwaanu Kaolack euh, ci li nga xam ne mooy wàllu diine kon tey lu ni mel moo tax ñu ñëw teew fii ngir wanale askan wi li nga xam ni mooy li euh, soxna sii di Umu Suleymin daal di def fii di jumaa ju mag joo xam ne tabax na ko jëmmal ko ci dëkk bii mu nekk ndam loo xam ji ndamal faydu bi la waaye ndamal lislaam la waaye nekk na loo xam ne ji tamit siggil na li nga xam ni mooy taalibe yi nga xam ni yëpp tënku nañu ci faydu bi waaye nekk fii nga xam ni mooy diwaanu Saloum jàpp ba fépp ci Sénégal ak ci fudul Sénégal ndaxte ñi nga xam ne ñooy taalibe Baay boo demee ba Niger dem Ghana dem ba euh, Togo dem ba Nigéria ñoom ñëpp boo demee fekk fa taalibay baay te loolu liggéey boobu ki liggéey di seexal lislaam Maulana Ibrahima Niass nga xam ni kenn du moom kon tey yaakaar naa ne bu sëtam jëlee li nga xam ne mooy ju néegu yàlla bii ñëw jëmbal ko ci dëkk bi nga xam ne mooy bi Bitène yaakaar naa nekk na loo xamante ni ji lu am solo la ci wàllu faydu bi waaye lu am solo la tamit ci liy dundal lislaam te lu nu mel la def fi nga xam ni fa la maama ma tegoon tànkam fa la teg tànkam ba tey mu woy mu nekk jigéen ju jëkk joo xamante ni ji nemmeeku nañ ko mu yombul ci àdduna waxuma la sax Sénégal mu jëmmal jumaa ju mel ni def ci ay millions lépp ngir teg tànkam fa maamam tegoon tànkam mooy dundal lislaam bañ koy woowee seexul lislaam kon loolu moom lañ fas yéenee ànd ak yéen ànd ak yéen ci li nga xam ne rek ànd ak yéen ci li nga xam ne rek moo jëm ci programme bi dinañ leen ko toppal ba nga xam ne rek lépp loo xam ne bàyyeekoo na fi ci ay kàddu jóge ci kilifa yi ak ñi nga xam ni tamit euh, ñoo euh, waral li nga xam ne rek mooy bés bi incha allah dara du leen sumpu si seen si Sénégal set kon ci kanam ñu ànd ak yéen ci programme bi. maa ngi dëkk Koosi Baye. Koosi Baye nga jóge ñëw fii. waaw ah, foofu la jóge ñëw fii. tey bi nga ñëwee fii ñuy ubbi néegu yàlla bi nga xam ni euh, sëtu Maulana Cheikh Ibrahima Niass moo ko fi jëmmal ci dëkk bi maanaam la maamam ja junjoon moom la feddali hmm. ban yëg-yëg sant yàlla bu baax bi ñu fi lépp fekkee sant yàlla bu baax di gërëm Cheikh Ahmed Dame Ibrahima Niass lépp ci taxawaay ak manamal woon di ñaan doon ñaanal dëkk bi yàlla dundal ko lépp fekk nañu fi ñu ngi sant yàlla bu baax di ko ñaanal yàlla bu baax li ñu defal ci suñu dëkk bi gis nañ ko ñu ngi fi gërëm sama mag fii lay sëy sama mag sama yaay fii lay sëy loolu ñu ngi koy ñu sant yàlla bu baax gërëm nañ ko bu baax yàlla na yàlla yokk ko yàlla na yàlla leeral kanamam doomam ji tabax jumaa ji ñu ngi koy ñaanal yàlla ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax yàlla na yàlla yokk ko ci zahir ak ji baatinan yaa rabbi ci barke yonentu yàlla Muhammad lii de buñ sañoon ñu ko fële ci koos ñu koy sant ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax waaw lant kon ñu am ko ci koos ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax te ko gërëm daa koy ko maa ngi bàyyi ko dëkk bii di Mbitteen Abdou maa ngi say Kër Makaañ kon da ñëw tey teewee euh, ubbite juma euh, juma ju ji waaw damaa ñëw tey pour màggal si bés bi ànd ak kontaante ak sant ngërëm ak xol bu sedd rek di ñaanal bés ki ko def yal na ko yàlla yàggal taxawaayam te yàgg koo fekkee yaare bi tey bépp dëkk bi kontaan nañ képp ku bàyyee koo dëkk ba dëkk tey kontaan nga ñun waa dëkk bi lañ dañoo génnoon waaye dañoo ñëw teewale si leen bés bi di ànd ak kontaan di jaxaw daal di ñaan képp ku fi taxaw yal na yàlla yokk si taxawaay lépp luñ fi ñaan tamit yal na ko yàlla nangu tey daal kontaan nañ wax dëgg waa dëkk bi yëpp bég nañ ñu ngi ñaanal waa dëkk bi yëpp yàlla may leen jaamu ba tey rek euh, ci laaj soxna yi rek euh, ban yëg-yëg la ñu am soxna si na nga def. fi rek Thiam fan nga bàyyi ko. man fii laa dëkk Mbitène Abdou. Uh-huh. tey ba Mbitène. Euh, tey bi ngeen ñëwee gis ñuy ubbi néegu yàlla bi ban yëg-yëg ngeen am en tant que soxna. kontant rek yokk ci liñ doon contente di ñaana soxna ummu ak sëñ sëñ Sidi mi seen mag yal na yàlla guddal fanam ak mbooleem ak i rakkam yal na yàlla seddal yaxi maam daam ci barkeb alxuraan ñun tey lépp luñ am rek maam daam la ñuy parce que sëñ daam bana fi loo xam ne ñun jooyu sax sañ daam am nañ siidi am nañ ay rakkam ñu ngi leen di ñaanal yàlla jumaa ji nag commencé nañ ko ci bisimilah eggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamina ñi ngi gërëm soxna ummu di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam ak mboole mi magam ak i rakkam ci barkeem Mawlaana te ñi fekkee woon euh, rëbb bi yàlla def ñu jiitu bi ñu sancat yàlla na yàlla sadal seeni yax ci dëkk bi yaare bi yàlla na yàlla setal seeni yax ci barkeb alquran ñi daal dañoo bég yokku ci lañ daan bégati ñi ngi ñaan ñi ngi leen di ñaanal waa kër maam daam ñëpp ñun nag ñun ñun amuñ dara ñun waa kër maam daam lañ am parce que ñun ñun bu ñuy mel nii tey yàlla jëmmi waa kër maam daam ñu ngi leen di ñaanal yàlla di yokk ci liñ kontaanoo ñu ngi leen di ñaanal yàlla jërëjëf Fatou fan nga jóge man fii laa juddoo waaye maa ngi say tey da nga ñëw ngir euh, fekk ci euh, li nga xam ne rek mooy ubbite jumaa ju ji nga xam ne def nañ ko seen dëkk. tey moom dañoo ñëw rek màggal si bés bu rafet bi nga ne umu def na ko di ko ñaanal yàlla yal na ko jik lépp lu mu bëgg ci dëkk bi rek yal na ko yàlla àggaleel si barke baay yal na yàlla def papaam ci aljaan yi sori yi dëgg yàlla am kontaan nañ dëkk bi moom tey ñëpp bég nañ ñëpp am nañ kontaan si bés bi ñu ngi ñaan yàlla yal nañ ko fekk ay déwén déwén ci barke baay ñis teewee ko ay ubbi jumaa yu bëri mu tasanteeg bisu gàmmu Médina bii yal na yàlla barke dëkk bi na yàlla yàggal dëkk bi mu gën a taxaw si barke Baye Niass kontaan nañ trop daal tey moom wax dëgg yàlla moom tey moom rëccuwuñ daal taalib yi daal tey lañ gën a dëggu gën a nekk sëriñu maam daam gën a kontaan wax dëgg yàlla mu lépp loo xam ne papa mébatoon na ko rek àggale na ko ci bés bi kontaan Euh, soxna si yow. Baye Cissé Thiam Baye Cissé euh, tey yéen ngeen dëkk ci dëkk bi nekk ay ndaw. Euh, di dunde lislaam juddoo si lislaam màgg ci lislaam ñu yar leen islam si diine tey ngeen am néegu yàlla bu mel nii lan ngeen yëg. waaw auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ñi sant yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa di gërëm suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim dinaa loolu di gërëm suñuy waajur di gërëm. imam ak borom dëkk bi buñ ko gërë nuyoo rek nuyu na ñëpp di am kontaan bu baax si bis bi di sant yàlla bu baax di wax ne li nga xam ne mooy grande mosquée bi ñu war ko inaugurer léegi al khalifa ak imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé ñu bëgg koo inaugurer nga ñaan yàlla yàlla ñu ubbi ko si jàmm ñu rappal ko di gërëm di sant ki nga xam ne moo ko taxawee muy soxla umar ñu ngi koy ñaanal yàlla ñun ay jeunes lañ.